Fat waaw ñu ngi lay fay sa sët nu mu tudd sax. Wassare Lamb ah, Lamb ñu ngi leen di bëgg di leen ziar di wax ne seen site ci kaw ci kanam ah. Ami Collé Thiandoum maa ngi lay ziar maa ngi lay fay mere woon naa la waaye jubóo nañ. waaw ah, doo ma mere man a ay doomu ndey lañ caat gëj nañ laa waa ñu maa maa leen raw maa ngi maa ngi rek di liggéey di xaar incha la le ci kàttanu yàlla ma ñëw confirmé. caat tekki gi lan la. non tekki ji nekk xale rek di nekk ci ginnaaw mag nee nañ euh, ku jàpp golo da ngay doo yëglu noonu la demee moo tax xam rek ma nekk sama ruux di liggéey ànd ak samay mag. nga jógee sa combat yaag bulldozer ñu gis combat bi ni mu ñu demee mun nga ñëw ci dikkal daanaka boobu ba léegi nangu cee wax nangu woo cee def dara. waaw li tax mooy saa su nekk dama leen di wax ne lamb contrat mooy boole moom parce que tamit ñun ñëpp ay nawle lañ bu ñu yàlla boole ci bis sa pare ñu giinaat ci ginnaaw ku ci ne di ngaañ sa morom day ñaaw bés jàll na ku ne xam na nu mu demee. kon maa ngi ci leneen nekk ci Mame Balla di ko waajal ndax moom laa am comme adversaire kon su ma waxee ci keneen rek maa ngi tooñ dama ne la nga ñëwaat ci combat bi nga xam ne jàll na yaag plus de seet dafa mel ne bi recours bi caat dafa bañ waaw waaw def nañu recours mu am ndam après ñu defaat trois mois ñu ne def nañ appel loolu nag mënu ma cee leeral parce que man daal maa ngi sama victoire mën nga ñu cee indil un peu leeral parce que am na nu mu demee ndax combat bi duré ñu doog caat joxe nangu nañ li nga xamoon victoire bi jox ko ki nga xam ne mooy. waaw loolu moom ñi koy wax ci ñoom laa koy déggee rek wax dëgg yàlla. Ah. parce que waaw parce que drapeau bi mi ngi man ñu koy man ñi koy wax ci ñoom laa koy déggee. xam nga tey Ami Collé man mu wax dëgg yàlla su ma la waxee dëgg rek maanaam seer Bulldozer ma wax ci moom leen lu ñaaw ndax dama koy jàllee way juróom bi nga xam ne moo fi bàyyeeku ñu koy ñaanal yàlla xare ko àjjanaan dafa mu ñàkk way juróom bu jigéen wala woo naa ko jaale naa ko ay frère lañ ay nawle lañ bokkoon nañ journée bëri nañ féete na côté kon nañ fàtte làmb jooju ñu nekk suñu kanam wax dëgg yàlla. nga jël maam Balla. ma jël maam Balla. maam Balla top top 5 lañ ko tuddee. waaw a ko tuddee top 5 man ngeen tuddee ma lan. dama ne la maam Balla man waxuma yow li ñu la tuddee maam Diallo top 5 lañ. waaw maam Balla top 5 ngeen ko tuddee moom moo yëg boobu top 5 wala yéen a ko tuddee top 5. maam Balla top 5 lañ ko tuddee ndax top 5 lañ. waaw top 5 yooyu fay na. lan kañ nga gis loolu ci moom. man maa fi nekk ndaw bu daar ndaw bu buddi. looy wax ni Mame Balla maa ko gën a pare aller retour maa dégg nag ci ay reportage mu naan caat yora amul change. nee na amoo kay nee lamb ji amoo ci dara. waaw xam nga nga toog sa biir koñ say asiko wër la gars yi di la tëgal di la woyal mais Mame Balla tay ma loolu bu la fekkee stade nga xam ne lépp dëgg la. Mame Balla lan. tay ma ray xew Mame Balla la Mame Balla Mame Balla Mame Balla la parel ndaw am caatu da nga dëggooroon yaraax génn osé dugaat yaraax bii du la jig nee na ma Mame Balla bi nga gisoon bu njëkk moom ngay gisaat bii yoon li ma gisoon bu njëkk ba daan yóbbuwaate top 5 nee na fa la lay yóbbu non barki Seydina Mohamed mënu maa yóbbu top 5 daaw ma wàcc làmb de sax làmb la nag nu ko neex lay tëree suñu borom moo yore ndam yàlla ma yàlla may mais du moom moo ma yóbbu top 5 mënu ko maa ko gën a fare mais Mame Balla say morom fu mu ma oo ma ko maa ngi maa ko bu xadarul lamb li may wax ay morom la wax suma grand frère nag dafa ma jiitu ci lamb mais champion la parce que def na fi lu bëri rampe na ba yegg fi war a yegg mën naa ne sax daf ñoo chance mais ñun tamit dañoo rampe ba tolloo ba tolloo bëri suñuy grand mais nee na combat bi yaa ko sàkku de waaw mais mën naa mën waaw bëgg naa maa saako lamb ji pour bëre moom jël na combat bi kon yàlla ñu ci yàlla yóbbu ak jàmm incha allah ma wane sama bopp. nee na la nga foog ne moo fa am ba ngay leen ma maam Balla jox leen loolu du fa ne. waaw loolu Caatu Yaraax ku xam ne saa su nekkee rek li muy appliqué maanaam loolu lay ci biir làmb non non du ma xoof tranquillité làmb mën naa fuuf moom li xam na ko xam. mais Mame Balla sa ki nga xam ne mooy Ndiaye Tine lu tax nga bañ ko Ndiaye Tine coow li bëri woon na Mame Balla kii Caatu Yaraax Ndiaye Tine Caatu Yaraax Ndiaye Tine ñu gis nga bàyyi fi da ragal dóor yi dóor nu mu demee. non làmb da ngay osé di rêver lu bëri ci làmb man wax dëgg yàlla. dama bëri ay combat teg la onze victoires successivement yoo xamee ne teguma ci defet dafa jot ma jël samay garaax ñu may ma sens yaraax dafa soxla waa des arènes yeneen gox yi dañuy dundal làmb ñun dañuy dundal làmb te bu yaraax génnee ñëw arène nationale ci kàttanu suñu borom nga xam ne ñun ñoo mën bés te ñun ñooy làmb Ndiaye Tine nee ma wiiri wiiri waaw loolu du ma ci ñëwagum man Mame Balla laay bëril instant bii nii Ndiaye Tine xam nga na ko jàmm soxal man instant yi ci Mame Balla laa concentré wu booy bu am looy wax nag nga bàyyi ba caatu yaraax bari ci combat nga doog a wax. looy wax Ndiaye li mu koy wax rek mooy la douze sera bientôt incha allah maa ngi invité ñëpp adduna bi yëpp ñu ñëw incha allah le douze bésu Eric boobu noonu ñu ñëw taxawal ko ñu ci nuyu Alioune Gueye suñu promoteur bi xam nga da ci woo ñëpp da ci woo adduna di leen wax ne bésu jeunesse la Bombardier ak Tapha Tine ñooy bëre bi mais na mel ni caatu yaraax mooy bëre bi ah! incha allah rabi lépp luy feesal stade bi man la ci kàttanu yàlla. caatu yaraax mu njëkk ba la ñuy gisaat. caatu yaraax bu bees tax ngeen gisaat le retour de caatu yaraax. ñoo ngi lay jaajëf. jaajëf ami Collé jaajëf.